Assalamu alaikum, mi maa ngi nuyu ku ci nekk turam ak santam Samba Camara chargé de l'éducation dans la fédération des acteurs pour le développement de Boune fédération bobu nak ki ko jiitu mooy Pape Moussa Camara fu mu nekk ni wax activité fédération bi fédération bi

nan lay liggéeyee ak eaux et ak ministère de l'environnement pour am fa ay parcelles yu population bi mun ci gis seen bopp ci wàllu eh, jeunesse fédération bi ànd na ak mouvement mun na nekk def setal te def set setal fii ci buut ci wàllu jeunesse bi toujours fédération bi organiser na fii tournoi des quatre grands bu loolu passé fédération bi mu ngi am taxawaay bu baax ci éducation ci wàllu éducation lu tax may wax ci wàllu éducation parce que foofu laay gën a yëngu foofu laa gën a miin ci chargé de l'éducation moo waral fukki école ak benn première phase moom la ñu jéem a mobiliser pour ñu ànd ak fédération bi jàppale xale yi loolu nag

musée de la civilisation africaine le 17 juillet nous dem visité eh, visiter sphère ministérielle yi dem visité également S Garmin SA qui fini fabriquer à Tony sport ñu visité fa fa dem la sphère ministérielle après terminé le 17 ci visite bi Dakar Arena le 20 juillet quatrième sortie pédagogique nous avons eu la place du souvenir nous visiter fa fi nga xam ay kàngam yu mag fa biographie après cela dañoo continuer monument de la renaissance que nous terminer la eh, visite euh, pédagogique la quatrième sortie et Inch'Allah, le samedi 24 août dinañu organiser fii ci Boun, euh, terrain Bissab ñu koy wax côté Furna journée de l'excellence xale yi gën a ci école yi ren fii année 2018 2019 dañ leen fas encore sargal. comme nous ko doyen à travers les sorties pédagogiques à travers les visites de sites, nous bëgg terminé terminer en beauté avec une journée de l'excellence qu'on fera incha le 24 août 2019 au terrain de Bissap. plus connu sous le nom de terrain Médinatoul Mounawara si loolu dañuy démarrer suñu programme jour boobu à huit heures huit heures et demie dimanche ñu teg suñu programme def suñu mise en place commencé suñu journée dina am nag ay surprises yu dul jeex ndax déjà fu ñu nee tey le parrain euh, l'invité d'honneur mooy Aly Ngouille Ndiaye ne parrain bi mooy El Hadj Mamboy Diaw directeur des domaines ne marraine bi mooy ay Aïssatou Ndaw la directrice des services fiscaux du Sénégal kon lo mënul nek bis bu ndaw ñu fas yéene élève yépp nak premier euh, di CI ba terminal ñu benn élève ci école yi nga xam ne ñoo fi nek ñëpp bis bi nak wétu ñu ci parce que am nañ ay partenaires yi ñu ci doon jappalé ba ñu tollu fi partenaire bu melni Fari Industrie avec euh, les jus et les eaux minérales euh, yi nga xam mom mo moo ngi koy defar di gërëm tamit suñu benen partenaire bu tuddu euh, groupe industriel Mina fabricant du trésor minant détergent di gërëm euh, IMS IMS mu nek entreprise bi nga xamné day defar ay chips crax di gërëm aussi suñu partenaire euh, Dakar Dem Dikk dañ koy gërëm bu baax a baax di gërëm aussi tamit suñu partenaire euh, SCAD ci taxawaay bu am solo moo xamné bu def nako tamit dañuy wo suñu jigéen ñi parce que fédération bi njortu na ni gëm nañ ni te wër nañu sudul jigéen ñi fédération bi existé wul muy la présidente Madame Nogay Cham, qui ne menace aucun effort pour la, euh, pour la réussite et le succès de la fédération. Diwo aussi euh, son adjointe Madame Chantal Sek ak seen secrétaire général Madame Maria Ndiaye di wo groupement yep nak groupement yi nek quartier Sané quartier Samba Sow quartier Mamadou Dia quartier Nguer ñom ñep ñong leen di wax ni jour bobu dañu bëgg sargal seeni doom parce que xale yëpp buun la ñu dëkk bëggoon nañ xale yëpp bokk si mais on a décidé de primer l'excellence de primer les meilleurs ngir ñi nga xamante ni nii kat seen niveau tolluwul noonu ñu redoubler d'effort mën a fekk si ñi si des si loolu ñoo ngi woo imam yi ñoo ngi woo délégué de quartier yi commencé ko seen euh, président de l'association de délégués des quartiers Papa Abdoulaye Diop ki nga xamante maintenant nous lançons un appel à tous les habitants de Boune les autorités nos chefs religieux les enseignants les directeurs d'école y compris les personnalités imminentes de Dakar je veux dire les ministres les chefs de société je veux dire les directeurs des impôts et domaines euh, nous avons aussi Madame la directrice des thèmes fiscaux aussi, euh, le 24 août est un grand jour inoubliable. C'est un jour où nous allons primer 200 élèves, 200 lauréats, les meilleurs élèves euh, du CI jusqu'en terminale. Donc, euh, ce sont les deux meilleurs élèves qui seront primés en présence des personnalités imminentes. Donc, vous avez eu la marraine, c'est Madame Ndao, euh, de des plans fiscaux, c'est la responsable. Nous avons le parrain, euh, nous avons le parrain euh, qui est au niveau de l'impôt et domaine, c'est le directeur général de l'impôt et domaine, Amadou Gao, qui va venir présider sa cérémonie, et le parrain d'honneur, je vais aller le ministre de l'Intérieur, qui sera à la, à la partie. Donc nous invitons toute la population de Boune les autorités de la localité Kermassa, Boun, Fasmo, Yembo Sud, Yembo de venir s'associer à cette journée qui est une très grande journée oubliable le 24 à partir de 9h jusqu'à 14h. Donc, euh, tous nos remerciements aussi aux partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Nous vous donnons rendez-vous le 24 août. Passez une journée, passez une nuit paisible. Merci.